Thank you. moo tax daal wax dëgg yàlla euh, moom Kouthia moom kenn du nattable ne moom waaw ndaanaan la ci li muy def Kouthia bokk na ci ñiy dimbuli réew mi ci ay non stress bu ñuy wax jàppal Kouthia bokk na ci ay mag a ngi ci kër yi Kouthia la ñuy xaar di ree loolu buñ ko xeeb waaw loolu buñ ko ko xeebal ay mag a ngi ci réew mi ne ci seen biiri kër Kouthia dañ koy xaar par ngoon da leen di faj loolu buñ ko ko xeebal li muy def waxuma la loolu dama laa jox benn thérapeute rek thérapeutique mooy am na mag ñoo xam ne tey seen feebar ree la del ree lu bari ndax nga wér Kouthia bokk na ci ñiy faj ay mag ci réew mi parce que li muy def humour la humour lay def day improviser nii nga ree te ree yombul ree fu sori lay jóge ci nit su ko nit dégagé rek te dañoo mag borom xam-xam yi dañu wax ne reetaan thérapeutique la day faj nit am na partie sa yaram foo xam ne reetaan mooy tax sax feebar du la fa du la fa gagné. et pourtant actualité la ciy boole. actualité ba pare di la jàngal di la wax li xew